bokk julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi nu santee sun borom subhaanahu wa taala julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal asheykhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara den ndokkeel ci bis tedd bi di bisu àjjuma ñaan sun boobu mu defal nu tawfiq nangul nu mboolem sunuy jëf gannaaw loolu waxtaan taw yi day jëm rek ci li ñuy tuddee birrul waalidayni te mooy fonk ñaari waajur sun boroom subhanahu wa taala mooy ki gën a yay ki ëpp xaq ci ñu sant ko gën a yay ci ñu rafetal jëme ci moom gën a yay ci ñu taqoo jëfe njëkk suñ digg ak moom ak topp kook jaamu ko waaye moom sunu ba mi nu bind ak te yayoo gën a yayoo loolu bu jàllee ka ëpp xàq ci nit ñi gën a yay mooy kam sësale ci boppam gannaaw bu mu tuddee xàqam yooyu ci jaamu ko kam ci sësale kan dafa def muqaarana diggante ma kooka eh, nga xam ne moo gën a yee gannaaw gannaaw bu jaamu yàlla jàlle ak topp ko sant ko ki gën a yee ci ñu sant ko topp ko mooy ñaari waajur wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana su ma dafa na ngeen jaamu yàlla te bu leen ko booleeg dara waaye su jàllee nag nangeen ngeen rafetal seen diggante seen ñaari waajur nga xam ne kon dafa muqaarana nga xam ne dafa tuddee xàq moom yàlla kam ja sësale ci xàq mooy ñaari waajur wala kon bu yàlla jàllee ka ëpp xàq gën ci ñu fonk ko mooy ñaari waajur wax ba tey ne wa xada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma xawlan karima na wax ne sa borom dafa dogal ci yow nga bañ jaamu kenn ku may moom waa su jaamu ko jàllee nag na nga fonk waajur rawatina su fekkente ne mooy kenn ci ñoom dafa àgg ci mage walla ñoom ñaar ñépp ñu àgg ci mage foo la fonk gi gën a yaye fa la gën a jaadoo ndax day fekk néew doole agsi ñàkk kàttan agsi xel muy jaxasoo agsi nga xam ne yooyu jamono da yor gi day jafe lool day metti lool ndax dootu man dara yaa ko koy mënal foofee na foofee lañ ko gën a soxlaa nee na bu ca tàyyee nag bu mujj nga wax baat buy tegtal da sonn wala danga ngaa muy baatu ëf bu leen gëddi itam mukk bul tàyyi ba gëdd leen waaye wax wax ju nooy wax ju sell wax ju wax wax wax wax wax ju dal wax ju làmboo ay teggin tey wàcce sa bopp seen wax fi lu ma janaata dul mina rahma te nga wàcce sa bopp seen kanam di nangoo di nangoo suufu di leen yëkkati ci kaw di leen fonk tey ñaan suñu ba ko yow suñu ba yàlla na leen yërëm niñ ma yare bi ma nekkee xale nga xam ne la nga ngay def langa nga mën lépp sa kàttan yam la nga mënu na nga ko ñaan kon day mel ne kon xàqam kon lu kawe kawe la lu màgg la lu suñu ba jox wàcc waay wu mag a mag a mag la suñu waxaat ne wa wasayn lil insaani bi waalidayhi husnaa ah, yàlla wa fisaaluhu fi aamayn an ashkur lii wali walidayka ilayya al-masir dañoo dénk doomu aadama mu rafetal jëme ci ñaari waajuram daan rawatina yaayam mi nga xam nag moo ci gën a sonn ndax moo ko ëmb coona ca kaw coona di tëdd ko jóg di wéradi ba ci ko ca tool sax dinaan jigéen ni wéradi wala jigéen wérut nga xam ne kon lépp lam la nga ànd ak moom lépp ci ñàkk wér lay nekk ci coona ci fitna man la dale foofu ba fa mu koy ferale ñaari at yu ma sëkk la ak ëmboon neen ba ci ak taran ñaari at ma sëkk mu ne kon kon nang ma sant man yàlla waaye nanga sant sa ñaari waajur waajur waajur képp la yàlla tudd na nanga ko sant gannaaw mu digle sant ko ci boppam nga xam te da koo lëkkale ani shkur li wali walidayka nanga ma sant waaye nanga sant sa ñaari waajur te xam ne ca man ngay mujj ëllëg te boo dee sama kanam danaa seet na nga nekkoon sa ñaari sa ñaari waajur ba xam rafetoon wala ñaawoon na loo ca loo ca yayoo ma fay la ko kon waru ci doom yi kon ñu nangu seen xàqi baay ak seen yaay du caagi nag fonk fonk dañ ko teg ci kaw saw bu su ne ñoo ñoo tax seenu am ci ñoom la saw boo doo ko acci lool képp wala boog dañ laa defal njëkk daal dundal di la wor di la toppatoo doo ko acci lool képp ndax boo ko acci ci lool day mel ne mu day mel ne la nga leen def defal moom ko fay la da leen jéem fay lañ la defal te loolu mënu su ko fay waaye nekkul mu waaye da ngay gëm ne yàllaa ko waral ci yow yàlla mi la bind moo waral ci yow nga topp leen jëfe leen njëkk fonk leen rafetal jëme ci ñoom ba tax mu lëkkale xàqam moom yàlla ak xàqi ñaari waajur nga xam la la la war bi ci jaamu ko moom yàlla moom képp ni nga xam ne ko tudd ci gannaaw waajur képp la ca sësale kon warugar wi jiitu ci doom ci diggam ak ñaari waajuram muy ndeyam ak baayam mooy muy feeñal ak cofeelam ci ñoom ñaar di feesal ak cofeelam ci ñoom ñaar mooy sopp gum leen sopp ak itam war ma jum leen ëmbal ak di dumóoyu seen ayib seen ayib na koy dumóoyu bu mu ko xool bu mu ko bàyyi xel te war mal leen warmal seeni ngëneel ñoom ñaar ak seen njëkk gi ñu ko defal ndax ba mu mënut ñoo ko mën a lon mu di leen caral te di leen wekk tey màggal seen mbir wàcce bopp ci seen kanam ñoom ñaar waaye di leen jëfi njëkk ci lépp loo xam ne loxoom àgg na ca wala kàttanam àgg ca ci xeeti jëfi njëkk ak xeeti rafetal lépp lu man ni ko di leen leyal su fekkee danga dañoo dem ba mënatuñ nga man nga di leen dundal di leen wadd di leen faj suñu wéradee di den jañal jépp lor joo leen mën a jañal tey nangoo def ay sacrifice ci ñoom te di sàkkul ak njéggal ci yàlla su fekkee gannaaw gannaaw bu ñu faatoo lépp ci fonk waajur la bokk ak di wéyal seeni kóllëre gannaaw bu ñu fi nekkatul ñañ amaloon kóllëre kóllëre nga jël ko di ko wéyal ak nag di teral seen ay seen xarit ñoom ñaar xarit dañ fi bàyyi nga den teral gannaawam tey jokk seenu bokk ñu jokk ñu bokk nga wut leen jokk bokk googee lépp dañ koy limaale ci fonk waajur kon li ëpp solo ci wari yi gannaaw wéetal yàlla ak jaamu ko mooy fonk sa ñaari waajur doon na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne birrul walidayni afdalu min as-salati was sawmi wal xajji wa umrati wa jihaadi fi sabilillah nee na fonk ñaari waajur moo gën julli gën woor gën xaj màkka gën gën umra ci yoon yàlla te gis nga yooyu ni ñu màgge ni ñu toll di ay farata di ay farata te na fonk ñaari waajur moo gën yooyu yéen saas la ma ko wax moo tax mu lënkale kon ngërëmam moom yàlla ak ngërëma ñaari waajur waaye lënkale meram moom yàlla ak meram ñaari waajur yonent bi saas la wax ne ridallahi fi ridal walidayni wa soxtullahi fi soxtil walidayni ngërëmal yàlla mi nga aju ci kaw ngërëmal waajur sa saa bu waajur gërëmee def nga la la war sa digg sa borom lépp waaye defu sa la war sa digg sa waajur ba sa waajur gërëmul yàlla du gërëm waaye su waajur gërëmee suñu borom doo la gërëm waaye sa saa bu la sa waajur mere it suñu borom daal lay mere kon day mel kon dafa aj ngërëm ci ngërëm ñaari waajur waaye aj merem ci kaw merum ñaari waajur moo tax Sëñ Tuubaa doon di ko santaane waxtu nekk di ca soññee di wax ne wa burra walidayka warfuq bihima wa kun mubadiran wantahi an jumlati ma xad na hayaak anhu li rabbik fayes daa di ulaak nee na nanga jëf sa ñaari waajur nanga leen fonk te dina ëmbal ak ñaawante tey gaaw ci jëf seen ndigal saa bu la digalee nga jaaw gaaw ci jëfe ndigal la bañ ko yeexe lépp lu ñu la tere it nga nga di ko bàyyi soo ko defee dee sakkawe fa yàlla dana yokk dana dolli ko Sëñ Tuubaa del waxaat feneen ne al adaba al adaba summa al adaba wa hiya an taburra umman wa aba teggin ba teggin jeex daal mooy nga jëfe njëkk sa yaay ak sa baay mooy nga fonk leen wal amma wal ammata wal axal kabir wa shayqa inna shayqa bil birri jadir waaye nanga fonk itam sa baay tax mooy ko bokk sa baay na nga ko jàppe ni sa baay say bàjjan ki bokk sa baay mooy nga jàppe ko ni sa baay ni nga fonk sa baay nga fonk ko noonu sa mag ki nga bokkal nday baay mbaa nday mbaa baay bu mag la sa mag na ko fonk ni nga fonk sa baay ak sa sëriñ nee na sëriñ nag mooy ki gën a ku yaayoo la ñu rafetal fonk ko jëfe ko njëkk rafetal jëm ci moom moo tax Tabarani dafa waxoon ne taatullaahi taatul walid ay lu walidayni wa maasiyatullaahi maasiyatul walid Allahu akbar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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Xawraani dafa wax ne topp yàlla mooy topp waajur waaye mooy yàlla mooy mooy waajur kon saa boo toppee sa waajur topp nga yàlla waaye saa boo ko mooyee rek mooy nga yàlla ndax ndigalal yàlla la àtteem nag fonk waajur àtteem ci lislaam mooy fardu aynin la faratay jëmm mooy kenn ku nekk eh, yaa ko def yaa kenn mënu la caawut yaa ko defal sa bopp ak donte ñaari waajur ya ay kàccoor lañu ci wàllu jikko wala ñuy ay kàccoor ci wàllu pas-pas mooy duñu ay jullit duñu ay jullit sax du tee fonk leen euh, farata la ci yow donte kon ay ay musi ay lañu du tee fonk leen warugat la ci yow li feek ñi ngi dund te loolu nag alquran saxal na ko sunna saxal na ko boroom xam-xam yépp saxal nañ ko alquran nee na wa wasayna al saana bi walidayhi xusna dénk nañ nit mu fonk ñaari waajuram rafetal jëme ci ñoom ñaar kon alxuraan saxal na ko su ne saxal ko seyxaan solo nañ ne benn waaye dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa di ko tàggu ci jihaad jihaad yu ñu war a def yéen du saasam laaj ko ne ko awa xayyun daaka xaala na am xaala fa fiihima fa jaahid ñu ko ne dama bëgg ànd ci jihaad ji mu ne ko ndax sa ñaari waajur a ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko demal nga jihaad ci ñoom demal nga yor leen kon yor leen mooy si jihaad yow kon yor ñaar yooyu kon teg tegtal ci la ne atteb jihaad la yor wala boog danga ci am tiyaa bay jihaad soo ko ca fasee ñoom ñaar solo nañ ba tey ne yonent bi sallallahu dafa wax ne ala unabbiukum bi akbari kabair ñetti yoon xul naa balaa ya rasulallah qaal al ishraaku billahi wa uququl walidayn ndax duma leen xibaar bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi nu ko axakay yow mi yàlla yónni mu ne bàkkaar bi gën a rëy mooy bokkaale yàlla soo jàllee bàkkaar bi gën a rëy mooy mooy sa ñaari waajur nga gis ne kon ca topp ga dafa lëkkale topp moom yàlla ak topp waajur waaye ci moy gi dafa lëkkale ma bokkaale ak moy waajur ci tegaloo ci ci ci ci ci doole ci tolluwaay dëggi-dëggi fonk waajur nag dana ci mbir yu bari des na ko fonke ci làmmiñ ci wax des na ko fonke ci xol ci pas-pas des na ko fonke ci yaram ci jëf des na ko fonke ci alal ci dundale bu dee wax nanga ko ci fonke mooy di ko wax wax ju nooy wax ju sedd ju tegtale ñeewante ak yërmande ci ñoom ñaar wax ju tegtale ak cofeel comme ni ko alxuraan leerale waxul lahuma xawlan karima xawlan karima mooy xawlan layyina wax ju nooy ibnu abbas nee na li sumba wax ne wa bil waldeni ihsaana daf ca nammu jëfe leen njëkk ñoom ñaar gu ànd ak ñeewante ak nooy nepp bañ a ci ñoom booy tont sax nag leen tontu tontu lu nooy tontu loo xam ne luy ndiru gëdd mbaa ak jéppeel du ca nekk baleen xool xoolub jàkk bul yëkk sa kàddu mu tiim seen kàddu ñoom ñaar waaye na ngay mel seen kanam ne jaam bu nekk ci kanamu ab sangam ca na muy yaroog na muy toroxloo waxaadaa ko aaya jooju ba mu jeex leeral na ci kon na na na na na na nga cay jëflanteeg moom ci googu anam boo defee nag ba fa sa kàttan yam na ko léegi ba xam ne li nga mën ci jëf lépp def ko ko ba fa sa kàttan jeex xam loo wóor na leen loolu mënut a matal seen xaq la jël nga lee ko ñaan de ñaanal euh, kon waajur day ko xam ne ma su ko fay ndax ñooy ñi nga xam ne ñoo daa gàddu sa lor gàddu sa lépp toggoo coono yu méttee mett ci ci yar la ak taxawu la rafetal day rafetal jëme ci yow di yaakaar sa dund di leen mébétal sa texe ak sa baaxu àdduna sa dunug àdduna yéwén sa dunug alaxira yéwén wala da nga gis koo xam nag day gàddu lor yu néew ci waajuram rek tàmbalee mébét seenu faatu di wane ak yokkat gum yokkat ci ànd ak ci ñoom wala nekk ak ñoom rawatina yaay mi nga xam nag moo ëpple lor moo gën a mën a muñ moo ëpple coona waaye ñeewantam itam moo ëpp ki nga xam ne moo ëmb ak la ca nekk ci ay fitnaaki coonaaki wéradi ak indile àdduna ak la ca nekk ci mën ci loo xam ne bakkan mën na caa des te ñu baree bare seen bakkan des na ca loola ak itam nàmpal di ñàkk nelaw guddi nga di ko taqal sobe di ko ko teg ko lu ne te moo tax yén saa su soññ soññ ci jëfe mën fonk ndey ñetti yoon bàyyi benn yoon te bañ ko laajee ana kan moo gën a yey ci ñu fonk ko jëfe ko njëkk toppatoo ko mu ne ko xanaa sa yaay mu ne ko su jàllee nag mu ne ko sa yaay ko su jàllee mu ne ko sa yaay ba ci ñeenteel mu dool ko ne sa baay boroom xam dañuy wax ne ñetti ummaka yooyu day tegtal ñetti coono yi yaay sonn ci doom ummaka li annaha xamalatka summa ummaka li annaha wadaatka summa ummaka li annaha yaay ju njëkk ji mooy ngir lim la ëmb ak ëmb la ca nekk ci ci ci ci ci ci ci tiis ak metit ba ko ñetteel ñaareel mooy moo la imbi ak la ca nekk nga xam ne ku ca jàll mucc dañu xam ne dañuy wax ne mucc na mucc na kon mënoon naa bañ a mucc tabar nañu fa tool seen bakkan des fa ba ca topp mooy moo la nàmpal diiru ñaari at di bootaka nga di ko teel nelaw ak coono yu bare bare bari moo tax mu ne sa yaay ñett yoon door ko ne sa baay benn yoon bokk na li nga xam ne wax ju nooy làmboon ko it mooy laay biire say waajur sañ nga leen laay biire waaye nag ci toroxlu ak wegeel ak ñeewante ak màggal eh, ci di leen wax lu leen amal njariñ seen ad seen mbir dina wala seen mbiri àdduna rawatina bu ñu ko sàkkoo di soog yow ci mbir nag leen wax sa xalaat ndax dafa bokk ci farata yi an nasihatu lil muminin laay biire jullit yi ca farata la bokk ci di leen gind deen jëm ci lépp loo xam seen yiw àddina seen woo nekk den tegtal itam lay tegtal warug loola mooy ad diinu nasihatu salaas la moo ko wax ñu ko liman yaa rasulallah xaala lillahi wa li rasulihi wa li kitaabihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim kon lay biiru jullit jullit ñi kon warugar la waaye ña ci jiit na gën la caa jege mooy sag njaboot ak say waajur eh, ci lépp loo xam ne seen mbiri àdduna ak seen mbiri àdduna mën na caa jege yàlla na suñu boom boole dimbale wala defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nanga nu suñu taalibe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasul أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح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 خلاصته من خلقه ومختاره من عبيده أما بعد فيا أيها الناس اعلموا وفقنا الله وإياكم أن النصيحة في الدين أوجبها الله تعالى علينا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 والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم ومعاونتهم على الحق وأمرهم به وإعلامهم بما غفلوا عنه من أمور المسلمين وحقوق عباد الله تعالى والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى ما يصلح آخرتهم ودنياهم وتعليمهم بما جهلوه وأما الكتاب فقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الطول الواسع والفضل المدرار العزيز العليم نشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار ونشهد أن سيدنا محمد رسوله روضة المعارف ومنبع الأنوار أما بعد فيا أيها الناس fa fi alayati allati aslafna dikraha wa xadiisi nabiyina almustafa sallallahu alayhi wa sallam bayaanul ijaabi lil amri bil maaruufi wan nahyi anil munkar wa jacalahuma shaaricu alxakiimu lilqaadiriina alayhi talaatata aqsaam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 an yantafia bi waazihi wa yanfaa annaasa bihi wa an yaxtarisa min itibaaci alhawa fi jamici aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalihi nasalu allaha lana wa lakum alcaafiyata fi dunya wal axira wa xusna alxaatimati بخديم طه عليهما السلام آمين يغفر الله لنا ولكم أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 allahu akbar sami'a allahu liman rabbana wa lakal hamd allahu akbar allah assalaamu aleykum